maa ngi leen nuyu di leen ziar di am contentement bu rëy tey waaw di kontaan ne sama papa yi tey lu ñu def nii awma ma seen fay waaw dañ ne Ada Fass ay xale lay àndal tey mag yi ñoo jug kilifa yi ñu toogoon ñoo jug tey waree ne ñoom ñooy kilifa yi waaw kontaan naa bu baax a baax si teewaay bi taxawaay bi tey gis naa li ma taxawoo li mooy aada anatul ay xale li moo tax may leen aada moo ngi soog a commencé bëree si làmb waaye saa yi kilifa yi ñoo jug te dañoo pare pour gunge seen doom seen sët lu ñu bëgg a suñu borom def ko incha allah rabbi leen la muy roi des arènes incha allah rabbi gëm-gëm bee ngi fi te yàlla baax na si kanam raw li bët waaw maa ngi leen di sant bu baax a baax a baax di leen gërëm di nuyu sama adversaire Zoss di ko jaale waajuram bu jigéen waaw di ko jaal bu baax a baax baax te yàlla na sarax bi yàgg seen loxo maa ngi koy nuyu jantal grand la grand bu baax la làmb rek moo ñu boole benn tàkkusaan bu jeexee tamit jeex na waaw maa ngi koy bu baax a baax. Mm-hmm. du nuyu axlu làmb du nuy Sénégal du nuyu diaspora du nuyu ñëpp bu ma limee damay juum. Mm-hmm. waaw kontaan mm-hmm. waa écurie Fass Benno bu baax a baax a baax waaw du ma damay juum. am kontaan bu rëy rëy rëy te di ñaan waa CNG tamit incha allah rabbi lu ñu lu ñu teg man ak ko di ko ñaan rek suñu borom ñu teggil ñu ko daal ndaxte ñun amuñ loolu làmb làmb lañu am waaw nañu aji quoi ñu bëre. ñu am date bëre ndaxte ay mbër lañ waaw mënoo jël combat te xamoo kañ ngay bëre loolu dafa xaw a métti waaw na xaw a jàppale tuuti rek ñu am date bëre laa mujj jeex incha allah rabbi jaajëf. Ada euh, ginnaaw loolu. Mhm. Euh, ñu dem julli ji dugg nga xamante ni dañoo génn àdduna aussi la dem fa. Mhm. waaw lii ñoo ngi si soo a ñoo ngi si soog a dox mhm. waaw ñoo soog dox kilifa yi ñoo ngi soog a jug mhm. waaw samay moroom laa doon àndal samay booy mais ñoom dañoo dem ba xam na ne essan yi weesu na foofu moo tax moo tax ñoom ñu ñëw assister taxaw dugg kër ak kër ku génn àdduna ñu jaale la mbokk yi ñu dox mbokk baaw leen ak ndaxte ak dëkkandoo dafa sew te làmb dafa métti lañuy daj fi coow ak kërëng kërëng yi kon instant rek nañu mëna profito pour baaw leen ak wa té ñoo ngi baal ak ñëpp tamit wa di baal ñëpp ak mhm. mu melni dafa am ñagas ñagas bu amon sa digënté ak sa staff mais dafa melni ñagas ñagas bu yalla def na ñu koy face ak ay supporter mhm. ñagas ñagas di jël temps dox comme non lépp defarul la rek ñagas ñagas bu amoon kon agrum ah, groupement du am kon waxtaan du am defarul la li defaru la war rek gën a xoolaat toogaay bi xoolaat taxawaay bi waaw xool tamit ak fi ñu bëgg a jëm ne sas la dañ doon jàpp ne nii ah, xawul def nii mais gëm nañ ne jamono ji nii la benn ah, benn sëy bi la waaw benn sëy bi la kon boo xàccandoo dóorandoo la instant bi waaw Casamance mhm. ah, loolu yàlla suñu borom la rek waaw suñu borom la. Arafaas mënul may dara boppam yàlla mooy maye waaw lépp suñu borom la. Mhm. mais borom la yàlla <laughs> yàlla la ab taali te ay taalibe lañ tamit ñu jaaxaluñu dañuy sant yàlla rek. Mhm. sa adversaire combat bi taxaw na. Mhm. gis ni mu dem préparé bi États-Unis. Mhm. seen diggante yéen ñaar wane ni combat bi keroog jël naa ko benn laay mu wax ni combat bi bokk na ci combat yu gënal ci làmb. Mhm. moo waral mu dem tukki. bi mu tukkee yaayam dëddu àdduna. jaale ba ko léegi. ñu koy ba ko passage. mais zone bu tukki à ñoo ngi fii nañu ne na CNG nañu am dar rek ñoom ñoo ngi fii quoi waaw waaw. ngir Idul Adha bi bëgg nañ ko tëgg bu fekkee baal nañ bu dee seen seen danañ ko baal nañ bëgg ko jàpp mois de juillet ci moment di ko jégalu rek di ko bu baax a baax a baax di ko baalu tamit ne ñun amuñu arène tey jii pour ñun la état bi defar pour waaw maa ngi koy jégalu bu baax man mbër mi Ada Fass maa ngi koy jégalu waaw di ko jégalu di ko ne mu baal ñu tamit ay mbër lañ sportif lañ waaw maa ngi koy jégalu bu baax a baax Père Birasène maa ngi koy nuyu au passage bu baax. li nga def ba ñu aj la bu bu combat bi taxawaatee Ada Fass dina ko def. non <laughs> xalaatuñu ko ndaxte amuñ la loolu làmb buñ defaru duñ yàq waaw li ngay suturloo moom nga am tey boo ko am di ko yàq wala di ko fooye làmb lañ am. dañuy defar moo ñu tax a jóg suñu suñu ay rakk ginnaaw kon ñun bu ñu yàqee rek ñoom tamit dañu yàq. Mhm. sa adversaire laaj. mu sax làmb moo moo ñu boole rek. ndax Zoss bu ma Zoss bu koy tooñ du tey. bu ma koy tooñ laa tooñ ñuy fekk si restaurant Tawfé mbay suñu président écrit mom ci kanam chaque jour ko doon même sens même sens ñu tok di fool mais xam nga sport tamit ak lamb ak liggéey mo ñu bolé mais du lenen sama mag la sama grand la lamb mo ñu boole. Mhm. mu ne mom da nga bari kersa sax xawma da nga ko ragal parce que amna xew bu ngeen dajé woon mooy sax ñoo la doon xumb pour la jëpp wa ñen loolu mënul ñak la ndaxte combat bi ni yalla ñu wane tapette bañ daan ñu am ndam rek na fu ñu la motax wa ndam rek lañ ñaan duñu du ay wax du ay lenen ndam rek nga bëre Zarko moo ëpp expérience lool ci làmb jiitu la ci làmb ngeen bëre mu daan loolu tamit jiitu Zarko ci làmb ëpp ko expérience jàngal ko bëre mhm. nee kele bi la Zarko daan ci loxom la mhm. ndax moo jàngal bëre Zarko mhm. loolu dina yomb nga nga ñëmul ci waaw bis waa dina leer insha allah dal lañ yàlla fekkee ah may ko jàmm may ma jàmm bis ba may ñëpp tal ak jàmm ak sutura ak xew bëri supporters yi ñoo esaat fees stade bi dell ñu bëree incha allah rabbi suñu borom ma ñu ndam. Mhm. gars yi loolu am ah, sa waay supporter lii dañ laa mere man kenn merewu ma man ñëpp laa seq ak jàmm ay supporter dañ maa mere non loolu amul sa man damay fees stade bi si kàttanu suñu borom waaw ay supporter dañ laa mere amul waaw fii amul mer waaw Baye Fall wala góor yàlla sax du mer duñu mer. waaw waxtaan la te waxtaan nañ suñu biir voilà jaajëf kontaan nañ waaw di sant sama pap yi waaw di sant sama di sant sama pap yi di leen sant bu baax di leen gërëm ne taxaw bu ñu am si man nii tamit waaw yàlla nañ ko taxaw tamit samay rakk ak samay booy si écrit bi na da ñun man awma man si boppam awma loolu Fass Benno man Fass Benno laa defee sama lépp ma làmb ma ma yàqal sama jàng tey ji élève bu mag laa naroon doon ndax damaa jàng école waaw nekk si niveau bu baax mais làmb laa mbër laa opté doon suñu waa kër Baye moo nekk mbër waaw maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ñu suñu objectif si làmb du léegi yàgg na suñu livre ñoo ngi ko teg di bind waaw balaa ñu dugg si làmb la ñu xam ku ñuy doon si làmb te si kanam incha allah rabi rawuli bët quoi ambition bi ngi fi lépp a ngi fii suñu borom rek moo def te incha allah rabi dina mottali lépp waaw maa leen di jaajëfal bu baax a baax nuyu Papa Sow di nuyu Ibrahima bu baax a baax di nuyu waa Jàmbaar production den jaajëfal bu baax a baax jaajëf